تولسي في كل شيء وفي سفر حماني bis bi juróom ñaareel bi numéro nu ci ànd ak sëriñ Fallou Garas si la sunu bayitu tey nag lahu dahara niyaati wa ilmi wa xidmati وروحي وجسماني وكلي بلا سكون شيخ محمد بامبا خادم الرسول نامو تي واخ لان نانا يو يالا ديرو ماي نتي كاو سوف اك بوما نك سي كاو سوف لو دهر ديرو جامانو جوخنا مصطفى صلى الله عليه وسلم جار لاكو تي ci جيم سي jëm si ci نيت كي yéene nit تي yéene بلا داف دار داي ام def dara دافي نانغام yéene yéene yi defi nangam nee na yéene jëmut ci keneen sama xam-xam du ci liggéeyal ku yow sama xam-xam bépp ci yow la jëm sama liggéey ci yow rek lay dem du xëy ci ku yow ma gont ci ku yow sama ruu gi itam du xalam kudut sa jëmm yi sama ruu yi keneen amu ci place yow rek lay dem mbokk yi engagement bi jàngaat leen ko ci nit ki li muy engagé woo ci digganteem ak boromam subhanahu wa lahu dahra niyaati yow yàlla sama yéene sama xam-xam sama ruu sama jëmm ak sama lépp jox naa la ko yow yàlla moo tax sëñ Tuubaa foo ko masal làmb danaan la ci yàlla la xëyee ci yàlla lay jëm sunu sang bu baax bi di sëriñ Tuubaa Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal gën a doole ak wéram mbégum murid yëpp la day wax ne bañ koo gisee ba bañ ko noppee gis ci boroomam rek la mas di xëy ba nga ko gisee ba ba nga ko noppee gis mosoo ko xam fenn furit ci yàlla sëñ Tuubaa baagante néeg yàlla ak néeg yonent bi su xëyee ci néeg yàlla bi dem ci néeg yonent bi bu jógee ci néeg yonent bi delluwaat ci néegub yàlla ñu xam yàlla xam yonent bi miin fa sëñ Tuubaa ba bu ñu xool diggante ñaari buntu kër yi image bi sëñ Tuubaa la leen di jox ci digganteem ak borom subhaanahu wa taala bokk yi kon suñu bindu baytu tey foofu la jëm ci engagement bi nga xam ne sëñ Tuubaa am na ko digganteem ak boromam ak leen ko jox bokk yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy daj dëpp gi moom la yàlla joxoon jépp sëriñ tubaab ba mu ko xamee loolu la noppee bëgg ci kaneen dara sëriñ Touba bëggatut ci kaneen dara wututut ci kaneen dara li muy wut lépp da ko yemale ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam li muy bëgg lépp mu yemale ko ci yonent moo tax mu indil ko bayitam bu màgg boobu nga xam ne soo settantalee bayit bi dara génn ci Moustapha kon luy dal sëñ Touba yonent bi la lu koy neex yonent bi la lu koy naqare yonent bi la sëñ Tuubaa amatul leneen dafa jël engagement jëlaat xalimaam bind te nit ki lu mu bind contrat la bu mu signé diggante moom boromam su ëllëgee yàlla daan ko lii yaa ko signé woon moo tax sëñ Tuubaa ay engagement am day rëy da koy bind incha allahu bu ñëwee danañ wax lam mbakkar feggul Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ànd gam ànd ak moom di ko liggéeyal ñoo ngi leen sant di leen gërëm di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal suñu bopp réew mépp ñaan yàlla yàlla murid yëpp màggal si ci jàmm delluwaat ci jàmm yàlla jële fi jàngoro ji barakati Cheikhna Ahmadul Xadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu mu nekkoon bayitu bis bi ñu leen jox digub daje incha allah ëllëg ak jàmm salaatu lasi fi kulli shay'in wa fi safar hamani ala ma